Assalamu alaikum, euh, amis fidèles téléspectateurs et internautes de CNM Challenge New Media et de Africa 7. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission On des Forces Taille. Euh, ñu ngi nekk en déplacement fi nga xamante cité Alioune Sow donc képp ki nga xamantene a ku gis nous ñu xamné ñu ngi nek ci wéru koor wér bi nga xamantene modi wéru di weeru gëneel weer bi nga xamantene 12 euh, mois ñu ngi lekk waaye yàlla ne un mois bi dama bëgg ngeen jaamu ma si bu baax a baax a baax a baax 11 mois du moins un mois bi nga xamante ne da ngeen may jaamu bu baax a baax a baax tey nag ñu ngi fii euh, ci cité Aline Sow ñëw seet si fii une personne handicapée mu yore association mais aussi muy def activité bi nga xamante ne day def partage ñëpp xam nañ ne weeru koor dafa nekk weeru partage weer bi nga xamante ne weeru gëneel la. waaleykum salam. Euh, Jamila ñu ngi lay ziar ñu ngi lay dalal fii ci euh, siège taxawma taxaw Aline Sow de golf euh, tey nga gis ñu ñëwoon fii di amaloon suñu ñeenteelu édition li nga xamante ne don distribution des dons alimentaires jagleel ko des personnes vivant avec un handicap et les familles démunies. tey léegi léegi comme tu tu l'as bien expliqué c'est la quatrième édition qu'est-ce qui vous a poussé parce que ñëpp xam nañ ne que da nga nekk nit koo xamante ne nit bu social nit boo xamante ne vraiment da ngay liggéey si par rapport aux personnes euh, vivant avec un handicap mais encore une fois qu'est-ce qui vous a motivé ba nga xamante ne weeru koor ba weeru koor il faut nga def benn activité bon alhamdulilah lu tax ñu koy def parce que gis nañu way laago yi si ko jamono ci ci mois de ramadan bi dañ leen di fàtte gis nga ni

daaw soo seetloo ñoo ngi ko mairie ville ñu ko cité pour wax la rek que euh, social bi ñuy def tey dafa nekk lu sincère ci ñun euh, tey yaakaar famille yu bëri tey dañoo am ci ñun gis nga a ñëw am na ñoo sax ndeysaan déplacement bi daf leen pour wane rek association bi rek mooy taxawaayam si su macha allah am na déplacement dafa lourd seen handicap dafa luur moo tax seen déplacement di xaw metti te yéen wa association bi yéen yéenay fas dem de porte en porte ni nga xamantene ne ñu récupérer sen kit effectivement parce que ñun comme ni nga ko waxee rek dañ naan dañoo ñew pour assister way laago yi gunge leen ci sen dund lolu motax tay ñun suñu taxaway say suné moy fexé ba sen jafé jafé yi ak sen solution ñu ci nekk say suné nous Tahoma association Taxawma association qui xam dans les quatre régions du Sénégal am solo nous, pour Nous rek ñun utiles, lu pour ak lu nous, lu nous, kanam way pour ko pour nous, pour nous, pour nous association modèle la organisation Nous bëri nous ah, ba tax na euh, sensibiliser fexe ba ñom ñu bokk ci askan bi fexe ba ñu bañ dund donc li stigmatisation. donc xamna né partenaire yi ñan ngay remercier plus particulièrement parce que bagage yi bëri na way bo xamante ne allah. bon di remercier le partenaire officiel moy RSF Rails de Sans Frontières bi nga xamante dafa nek partenaire bu am solo ci association bi di remercier aussi conseil de quartier bu Cité Aline Sow jiital ci monsieur. Euh, Abdourahmane si di jaajëfal aussi imam bi nga xamante ni gis nga ni ñëwoon na fi ñaanal ñu ba pare encouragé mooy ay dara nekk suñu papa mu nekk kuy liggéey liggéey bu am solo di di jaajëfal di jaajëfal aussi staff association bi ak membre yi nga xamante ñoo ngi doon taxaw taxaw liggéey di leen jaajëfal yéen aussi euh, Africa set ci liggéey bi ngeen def mu nekk liggéey bu am solo saa su ne yéen a ñu gunge di dooleel way laago yi ci Sénégal kon di leen ko waxee rek su ne ma situation ma force

dina fekk ko xamne amul won dara nga jappale ko kape yi nga xamne ne ñu dara te suñu borom tek leen fi ñom ñi nga xamne ñom ño fi ñewoon di leen di jappale di indi seen suukar ko 3 ans ma ngi ñëw fi di di di ko jël ci tay lan ngay tay lan ngay wax euh, président euh, Ibrahima Aidara Ibrahima Aidara suñu doom ju bax la ku ñak ki ñaan la ku bax la ko xamne lu mu am soli solidarité ka tax a jóg lu mu am bokk na ak doomu aadama yi lekkul dara bàyyi kenn moom lu mu dugg da ciy taxaw ak ay mboqam ak ay dëkkandoom ak képp koo xam ne néew doole la ak handicapé la da cee taxaw waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko doole guddal fanam wéral ko ndax lekkul dara bàyyi kenn lu mu am da koy bokk ci ak ak yi ñëpp lay jox amul kenn koo xam ne mës naa ñëw fii te ne yóbbuwuma ah merci waaw ñoo ngi sant yàlla di jul ci rasulillah salallaahu alayhi wa di ñaanal waa équipe bi yàlla dooleel leen ndax lii yombul alal dafa sax ci xol te ki koy yëkkati di ko jox handicapé yi ak néew doole yi kooku deselitu ki doomu aadama yi dara ñu leen di ñaanal li ki nga xam ne moo soqi lii yàlla sunu borom dooleel ko may ko gudd fan ak wér ak wérle.